dafa nekk koo xam ni référence la ci monde entier alors ñu ngi seetlu ci kii euh, dëkk Papa Thiaw lan nga ñu ci mën a wax. waaw di jaaree seen i. mère rek xaaral mu pare waay. ak dégloo waay ak dégloo. waaw xam nga war na la si diggante doom ak sa loxo micro bi man ñëw naa. sa loxo sa sa loxo ci bopp. wàccal leen ko waay xaar ko ci oto. maa ngi leen suñu borom nga xamante ne dana taw ñoom ñoo tuuti wàcc sa a tax sax ñu fa fekk ci barke seen waaw sëñ looy wedd mais Balla looy dénk mbooloo bi nga xamante ne ñoo nekk ci àdduna bi te nekk ci àdduna rek te jàpp moom kër la looluy dénk ñoom tamit ñu bàyyi xel yàlla bi waaw xam nga àdduna moom li ci am solo mooy jaamu yàlla ba xëy moom solo kër gi ñu ngi dëkk moo njëkk ci loolu. gàllaay gàllaay nag gën ma jege. gàllaay yàlla xiir ci jàmm yàlla yàlla xiir ci sax jàmm yàlla xëy na suñu papa coon nag dëgg yàlla mbooloo mi ko tey gunge ñëpp war nañu xam ne dafa baax tax na daal yàlla ak tawfeex. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf